Hello! Boki département de Mbaki, Boki Touba Boki gox-goxaan xew mercredi Yamok, 23 janvier 2019 Simbaru Il y a dina conférence religieuse bi nga Kurel réseau pour le développement Kurel, Ligue Dekibi, bi amal Sitem yu am solo thème bu la politique face aux égards dus à la ville sainte de Touba à ah, dina Amsolo, am solo waxtaane Walu politique ak de gi ñu war a jox dëkk bi lan ay relation ak doyuwaay dëkk bi nun ko war Aduna, si kan amal di serigne abo mbàkke murtada falilu ci xam-xam bu rafet bi fas nak amal exposé bu mucc ayib waye nak mbokki deuxième thème bi di wax ci jeunesse islam politique walum ndaw yi dine islam ak politique kan mokay nak animé di oustaz tayib sosé mi nga xamante su waxé ñu déglu ko ndax xam-xam bu sel bi ta rafet tubaarkàlla macha allah ñu ni xew-xew dine bu mag bi ñu koy amal ci patronage son excellence monsieur le président de la république Macky Sall waye nak ànd sek serigne cheikh abdoulahad mbàkke gaynde fatma mi nga xamante mom la xale yi tamu bëgg ko safoko mu ànd ak ñoom di leen gunge teg leen si yoon ba ma waral bés bi ñu ni dañ ko jël nag dara jaale ko ko waaye nag bokk yi ñu ni yaatal nañ ko woo nañ si ñëpp chef religieux yi nekk si biir Touba fàttewuñu benn si njabootu Serigne Touba gi kër gu mu mënti doon cheikh si fàttewuñu ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu si wàllu politique si fànn bu mu mënti doon rawat na waa Benno Bokk Yaakaar woo nañ si soxna Maam Khary Mbacké moom Serigne Mourtada le maire de la ville de Touba Abdou Lahad Ka Serigne Abdou Lahad Diakhaté soxna Assou Boury Mbacké Maam Say Mbacké Allah Sylla à père à Touba Madiana monsieur Ba Hadka tous les maires du département de Mbaki les hauts conseils des collectivités territoriales ku honorable Madame Bay les députés Cissé du parlement de la CEDEAO honorable député Sadaga Bolem ñi yor Tank, tànk les Abdoulo centre des œuvres universitaires de Bambey opérateur économique yi nga xamante ni ñoo nekk si dëkk bi fu nu mën ci fare wanal leen si développement bi président du conseil communal de la jeunesse de Touba teg ko si monsieur Pape monsieur Morlo monsieur Basio chargé de mission à la présidence, Hadim Silla, Bati jeune acteur politique, Monsieur Bassirou fatou la jeunesse sentinelle, la jeunesse en marche vers 2019, de bi ñu les groupements de femmes les associations n'y ñoo gorbi si biir gox bi di doxal dëkk bi maanaam daal xale yi kibi nous comme amphi, ñu ay ndaw Touba bëgg seeg nag ànd ak ñëpp muy res kuréel liggéey dëkk bi loolee waral ñu tàllal loxo ñëpp ñu kenn ànd seeg nag ki nga xamante ni ah mooy seen gi di seen lépp di Serigne Cheikh Abdoulaye Touba moo ko ñor askan wi nekk si nekkin bu baax moo ko itteel saa su nekk si lay dox di si wax tàllal ñëpp loxo sëriñ bi nga xamante ni moo boole modernité ak li fi mag ñi bàyyi woon te yàqul dara si démarche am ah Cheikh Abdoul gaynde Mbacké Gaïndé xaritu ñëpp mooy leen si initiative bu rafet bii nee na nag tàllal na loxo ñëpp bëgg na ñëpp ñëw jëriñu si li nga xamante ni mooy action bu noble bii xale yi amal naka mercredi yemook 23 janvier 2019 si mbaaru daaru xudus bëgg nanu mbokk yi bu ko kenn wutee